agence de presse sénégalaise euh, taxawaayam dafa baax bis yu toll nii bu jotee ñu ñëw eggee ko kilifa yi ndax lii du daan am agence de presse sénégalaise daaw la tàmbali bu màggal tero mu ñëw gis xalifa bi gis porte parole bi bañ ko defee daaw ñu gis ci ay ngëneel ren ñu feddali ko loolu nag dañ ci ànd ak cellule communication bi nga xam ni bu màggal gi jotee ak lépp lu ko wër ñoom ñoo yor communication bi ñu jàppale ñu ci facilité ñu ba tax na ñu dajeeg euh, xalif général bi ñu wax ko li ñu bëgg a liggéey mu am ci mbégte mu ñaanal ñu yàlla barkeel loolu ndax li ñu ko wax mooy agence de presse sénégalaise dafa am jubluwaay bu bees léegi dañu gën di jokkoog ñu nekk ci bitim réew moo tax léegi xew Sénégal te mu intéressé àdduna dañ koy tekki ci anglais tekki ko ci arab xalif bi nag loolu mu am ci mbégte lool ba ñu jógee ci moom ñu ñëw ci porte parole xalif bi moom itam sëñ Bass Abdou Khadre mu rafetlu liggéey boobu daf ñuy gën a soññ di ñu ñaax ñu gën koo fulaal gën koo jox cër ci suñu liggéey. te xalifa bi wax na ko euh, porte parole bi wax na ko nee na jéego yu ñu sàq rek ñëw loolu rek doyoon na moom mu am ci mbégte lool ñu indi ay butéelu ndox yoo xam ne toll ci junne juróomi téeméer yoo xam ne dañ koy teg ci loxo porte parole bi ñu def ci effigie APS wane ne APS mu ngi ci. wane ne APS incha allahu rabi balaa màggal dañuy ñëw nekk fii ba màggal gi paase. te lépp loo xam ne àdduna war na ko xam agence de presse sénégalaise dina si taxaw taxawaay bu am solo incha allah ren ci estimation yu ñu am lu mu néew néew ñaar fukki agent agence de presse sénégalaise dinañ fi nekk waaye li am solo ci jéego yooyu ñun loolu sax dañ ko xeeb li ci am solo mooy lii dafa dul woon am agence de presse sénégalaise bu njëkkaan bu màggal jotee dafay yónni rek ab reporter mu ñëw waaye mbir mi dafa soppeeku soppeeku na depuis daaw daaw toll nañ ci fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ren ñu ne dinañ ëpp ñaar te dinañu ñëw itam teel du ñu xaar ba màggal bisu màggal wala ñu suba na màggal dinañu ñëw lu mu néew ne une semaine avant màggal ndax léegi am nañu département boo xam ne liggéeyam mooy lépp luy xew ci biir région yi ñoom ñu ngi liggéey jamono ji ci loolu am na tam beneen innovation boo xam ne defoon nañ ko daaw dañ koy defaat am nañu benn hebdomadaire boo xam ne dafay génn dañuy def benn numéro spécial boo xam ne màggal gi rek lañ ko jagleel